bismillaahi rahmaani rahiim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa mbokki julli di mbokki taalibe yi ginnaaw bi ñu sante yàlla julliwaat ci yonentaa bi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam dellu si santaat bu baax sunu yaakaar teeg ëllëg di ko tedd ki di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñoo ngi am mbégte yaatu ak kontante di leen nuyu di leen ziyaar di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit mu yàgg fi lool ci ànd ak wér di ko ñaanal mbooleem njaboot ak sëriñ Touba gépp di ko ñaanal mbooleem seex si yëpp di ko ñaanal itam mbooleem taalibe yëpp di leen ndokkeel bu baax yéen ñi jàkkaarloo ñun ci biir réew mi ak bitim réew ci seen télévision Assalaamy TV ak seen rajo Assalaamy FM nin ko baaxoo defee ci weeru koor wi ñuy ànd ak yéen ci ñenn ci kilifa yi nga xam ni am na taxawaay bu am solo boo xam ni am nañ ko ci dëkk bu sell bi di Touba waaye itam suñ borom itam di dénkaane dénk leen ab cër ci dëkk bu sell bii di Touba wala muy borom xam-xam yoo xam ni seen xam-xam itam ràññeeku na ci waxtaane ngir jullit mën a gindeekoo ci wàllu nekkinam waaye itam am yóbbal fee ñu jëm yàlla na yéex loolu nag tey moo tax suñuy jéego ñi ñëw fii nga xamante ni moo di janatul maxwa janatul maxwa suñu fi ñëwee ngeen gis imaasu Serigne Balla Fally Dieng bii dangeen xam ni ñoo ngi ci kër koo xam ni kenn dutu ko présenté ci dëkk bu sell bi di Touba waaye itam kenn dutu ko présenté itam ci senegal yëpp waaye itam kenn dutu ko présenté ci région bu Diourbel bii ndax taxawaayam di taxawaay bu ràññeeku ba ci njëkk di boroom pas-pas pas-pas nag su àndee ak yitte ju kawe lépp lum bëgg boroom bëgg mën na koo am ca moo dal jëmm ji nga xam ni moom la ñu jàkkaar lool di defaruk sëriñ Balla Fally Dieng waaye itam di defarab sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacké waakaar naa ni ab toolam bay na ko bu baax a baax ab goppam bay na ko ci toolu lislaam waaye itam bay na ko ci am réewam ba léegi nii tam ñuy ñaan yàlla gopp boobu yàlla na yàgg a bay ci barkeb Serigne Touba ndax ñëpp yéene nañ ko ko mu di suñu jur di suñu xarit di Serigne Saliou Dieng di chef du village u Boqaatul kon nag yaakaar naa ni bari na ay ndaw yoo xam ni dégg nañ tëjal bunt bi wala dégg nañ kër gi sama këra te ci jëmam ju sell ji ci la bàyyi ko ci confiance boo xamante ni Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké joxoon na ko jox ko ko waaye itam loolee di confiance ba warut sëriñ saaliw warut njaboot ak Serigne waaye itam warut sëriñ Touba warut njaboot ak Serigne Touba ndax xam na li tax ñu jox ko liggéey bi mu koy sàmm di ko saytu ba liggéey bi ak mu ak si tey suñu nammee waxtaanee ak moom ci dëkk bu sell bii di tuubaa su nammee waxtaanee ak moom ci Euh, carte Touba muy carte d'identité Touba ci ni ñu rëddee dëkk bi waaye tam nag li nga xamante ni muy rëddëb Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké ak yokk yi nga xam ni am na ko ci jamonoy laay wàdd ba léegi ba ci kenn ku ñëw am loo ca dolli côté bi mu féete ak yeneen côté yi nga xam ni sax moom féetewu fa waaye yàlla dogal na maîtriser na dëkk bi ba nga xam ne lu luñ ci mën a waxtaane rek dinañ ci waxtaane li xaj ci waxtu wi incha allahu rabbi kon nag suñu wayjur woowu di bàyyi Saliou Dieng Euh, chef du village su mu Baraka lañ fekk fii tey ci këram ci janatul mahwa suñ euh, ko nuyoo siyaar ko bàyyi ko mu nuyoo ak mbokk yi su ko defee nag ñu ñëw ci laaj bu njëkk beek moom incha allah Baye Sall ñu ngi lay. salaamaaleykum <coughs> wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Sëriñ Mata maa lay nuyoo di nuyu mbokki murit yëpp ci nuyoo bi. kilifa ga dëkk bi di sëriñ Mouhamadou Mountakha di nuyu kilifa yëpp nag di leen siyaare di baraax ñëpp te baraax ñëpp àq waaw. am na solo sëriñ Saliou kon nag su ko defee li ñuy njëkkee rek yaakaar naa ni suñu bëggoon a xam <clears throat> kan mooy sëriñ Saliou Dieng jaar-jaaram ci wàllu tarbiya ci digganteem ak sëriñ Balla Fally Dieng. waaye itam digganteem ak sëriñ tubaa Cheikh Saliou Mbacké lan lañu Serigne Saliou di xamal ci diggante boobu. ah foofu doom dañuy wax rek alhamdulilah ndax day mel ni lépp jiitu na sunu juddu ci ñaar ñi nga xay ñoonu dar muy sëriñ Balla Fally ak Serigne Mor Jalla Yaabe ku ci nekk am dafa am ci cër ci Serigne Touba Serigne Balla Fally nag borom def na taw yi maanaam. mel na moom dong sëñ Balla Fall te sëñ Tuubaa ne Balla Fall defar naa ko kooku bokk na ci sabab bi bi ko ñaareel mooy sëñ Mor Jalla Yaabe moo yër sama ndey te bi sëriñ Tuubaa yi sanc Tuubaa Daaru Salaam la tànn fukki dongo ak juróom hmm. fukki dongo ak juróom yooyu maanaam moo leen jiite woon juróom ñaar yi njëkk jëkk jëkk a takk fii ci Tuubaa sëñ Mor Jalla Yaabe moo ko jiite maa ngi dégg ci sëñ Moussa Abdou Khadir mu ne jamono yi sëñ Tuubaa nekk na ci bépp bi mel na see mel na sëñ Mamar Ja dong mu amoon sañ-sañu fekk fa mu nekk di ko jox lu muy dimbali ko loolu it boo xamee ba noppi it tawfeex ci sëñ Saliou loolu mooy saw bi tawfeex yi mooy sunu sunu sunu baay bi muy faatu sëñ Saliou mi ngi lappe ka ka sëñ ma ko jotale bi sama baay di faatu roogi dem sëñ Saliou daal laajte saa baay mm-hmm. ñu ne ko sa ruufi de bañ xëyee ñu tàggati ko mm-hmm. ba saa borom loolu mu xëy ñëw daaru ja mu jullee ko ñaan ko ñu denc ko sëñ Saaliw jógee foofu delluwaat Tuubaa at ba at daa ñëw mbaakul bi mu ñëwee weer rek fan laam ñëw booy kër sañ Alasaan Jaxate nijaayam jóge fa ne ma jaar kër xaar jaale njabootu sañ ma dikk gii kere bi mu ñëwee kër la daa ngénte wax nañu ne bitim sa bi mu agsee ñu ne soxna si dafa am doom sa yëpp la ñu xaar nee nañ bi saa borom dogalee wàcc bi si yëpp di agsee bañ ma tegee dañoo xoolante rek mu daal ma tudd ci coobareem ci gàttal daal mission bi nga xëy maanaam moom laay dox nii kero kero kero kero kero moo ko yëkkatoon mu ñëw Tuubaa mm-hmm. at ba la daa ñëw weer rek fan la ñëw taxee loolu mu def mission bi dellusiwaat Tuubaa mm-hmm. waaw loolu daal moom xam nañ ko ci daal. nga xam boppam. waaw. Hmm. waaw moo boppam euh, liggéey biit it nii rek demee sama kër gii ma dëkk nii mu ko jox coobareem. Hmm. bu saa waroon dëgg bi ma ba xam ne dem tër bi te di jàng ba dafa ni atum dañu batiiru ah, daara ji ma nekkan mooy daaray gent ba atum dañu batiiru lañ ko sanc tarbiya gi it ñaar fukki at laa ci def jëwriñu juróom-ñaari at ma wàccee it maanaam fii laa daal di ñëw kër sañ soome bi gii sañ laa dëkk tey jii hmm. keroog ba ko seet du jëng di kuule mi ngi toon tombé la treize février 1985 di xaadar ba ba tey daal xamat ci laa yeewu nit ñi bi dara sama kër mag bi ma ñëwee it 85 ah, laa wàcc 89 laa sañ ci bi ma sàncee it sëñ Modou Fall ndeysaan mi ngi nekk Touba Mosquée mm-hmm. damaa daal di dénk jantuma waa gii ma ciy gëstu ba 96 bi sëñ bi tàmbalee nat eh, joxe sooti mu commission boo koy fukki nit ak ñaar la mm-hmm. commission boobu ah sëñ Modou Fall moo ko jiite woon commission boobu li leen sëñ bi sëñ sëñ Sallou joxoon da ngeen ko joxeloo mi ngi nekk ci 27 512 parcelles 27 mille. 512 parcelles 512 parcelles. waaw ci fan la ci Bokkatul Moubarak mooy Bokkatul Moubarak. Mm. mu dagg ko 36 quartiers. daar day def Bokkatul Moubarak mooy plan bii ci forage plan numéro 7. Mm. ah plan boobu 1140 parcelles rek la. moom mooy ndey mboolem plan yi. Mm. mooy village bi Bokkatul Moubarak. ba loolu xamee nu nekk ci loolu. nekk ci loolu ba loola jeex. loolu it ni mu demee. sëñ bi natt ci boppam. sëñ bi bi mu toogee jógut jóg joxe kër dafa jóg di gëstu suuf si rek am na kilifa yoo xëy nattan nañ ca ci jamono yooyu waaye dana cel bi mu nattee ba ba mu leen woo ba ñëw mu maanaam leen plan yi nattan delloo leen xeet bañ ci defal leen dëkk bi dafa waram benn boroom la waram wartam ñaar. Mm-hmm. ba mu leen ba mu leen séddee la ngay def maanaam mu joxe mu mu maanaam mu jox la maanaam mu jox na ko ñu joxe ko. ñu waaw waaw. maanaam waaw waaw ah, maanaam nam de yoon ah, mbedd cent vingt mètres ci la sëñ Saliou jëkk yamale am na tam waaw maanaam ah, maanaam bi Abdoulaye Wade ñëwee dolli ko ñaari kilomètre mu teg ko ci cent vingt mètres bi dem ba fa mu yem maanaam mu dóor fa mbeddum deux cent mètres moo moo dëkk bi man naa ngi jàpp ne titre hmm. de ndax doomi sëriñ Tuubaa moo ko defoon te ñu mën taqaay bi muy gëstu di samp la pot yooyu la waxan mooy fi ma tàmbali laa bëgg xam ak mu yem mm. foofu fa la samp loolu tax ma jàpp ne Tuubaa moom ji jigu deux cent mètres bi mm. li wér te woo daal jëmmi Tuubaa dëgg dëgg daal muy deux cent bi dëgg ci biir xëy na nag mën na ca doole waaye jëmmi Tuubaa daal muy deux cent mètres bi dëgg ci biir maanaam natt boobu ngeen doon natt ci eh, jamono boobu ñëw mm. ak sëriñ eh, Modou Fall ñoom waaw Euh, fan ngeen tàmbalee woon euh, ak 120 euh, mètres boobu. Hmm. fan la yemoon ci misaal tey soo ko doon misaal nit ñi. Hmm. ñun fi tàmbalee forage bii la ñu tàmbalee 96 dégg nga plan boobu mooy bokkatu baaraga. Hmm. mooy mi mille cent quarante parcelles. ba mu jógee ñu teg ci plan Ousmane Mahab. ba mu jógee ñu dem ci plan Tiis. ci la umul xuraan hmm. nekk ci la nat am nekk ci la nuurul munir nekk ci la aydurilla nekk ci la madinatul munawara nekk hmm. dégg nga ah, plan boobu ah, route de Darou Mouhty numéro un hmm. moom lañ ci bind muy muy mille quatre tegal benn euh, bi nga xam ne xaw naa fàttaliku muy bi ngeen di natt euh, ginnaaw marché bees kër gor mais nag boobu itam hmm. amoon na liggéey bu yéeme boo xam ni hmm. euh, def ngeen ko fa hmm. ba tey itam soo xoolee marché bees itam am ngeen fa taxawaay boo xamante ni tey yaakaar naa def ngeen ko ba mu yeeg mu mucc ay trop waaw foofu nañ ko liggéey liggéey bu donga lañ ko liggéey ndax boo gisee mu gaaw ah, sëñ Tuubaa lu mu santaane su mën na lu mu ñaan nu am ba noppi la sëñ Saalum moon xalan technique yi raar bu ndoxee ba nit ñi xalaata tayel dañuy daal di xool benn bayaal ñu ne leen lii di ab marché la. Mm-hmm. nit ñi sonk bu ko nit ñi songee nag ñu puus bu ñu puusee puus puus puus ba ca marché ñu leen fekkat du marché fi muy marché bi ne ñëpp ñëw fi noonu moom ñoo ngi ko jëkkëre marché bu tas gis nga marché bu bett gis nga nam toll. Mm-hmm. sore nañu loolu de xam nga ne. te teewut maanaam fees na ak ak mbooloo. ba jógee maanaam ñu dem ma ma marché marché marché ndigal marché ndigal bii. moom it ñu ngi ko jëkkatee ci Firdawsi mm-hmm. waaw ginnaaw bi la leen yóbbu fa mu nekk ci Minatul Axlaa mm-hmm. marte marte kër marte marte umul xuraabit ñu ngi ko jëkkatee ci Madinatu Munawara ba naaga jëm marte ba ci Daaru Xaboor ñu ne marte baa gi mu doxe noonu ba ci marte bi ci kër am tatu penku kër Sëñ Amsatu marte bu rëy fi nekk waaw marte yëpp noonu lañ ko doxalee am na beneen marte mi ngi ci yoonu penku forat bi mm-hmm. marte boobu marte bi ngi ci quartier Tonn Fadja ah ki ko natt mooy Moussa Moursala Alaaji Baara. la mm-hmm. Fodla Jabaay laa ko déngat ci yooyu jamono ba fii ne moo koy taytu. Mm-hmm. waaw mm-hmm. waaw.